salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki ñi nga xamante ni bi yéen a ngi safoo di seetaan Dakar Buzz tey nag dañu ñëwaat ak yéen ci beneen facette maanaam ñëw ñoo ak ci émission jotaayu alquran ku nekk xam na ne ñooy amal jotaayu alquran fii ci Dakar Buzz waaye tey dañu dañu génn génnum naqarlu génnum naqarlu boobu nag moo waral ñu toog ak oustaz Mouhamed Abdoulahi Ngom pour naqarlu jëf ji nga xamante ni bi am na fi ci ayu bis yi ñu weesu muy lan ay kàddu yoo xamante ni nit ku bokk si ñun génne na ko ci ñaawal alquran alquran ji nga xam ne nag borom bi subhaanallah subhaanahu wa taala moo ni law anzalna hada alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashatillah borom bi nee na alquran jooju su ma ko loon wàcce ko ci am montagne montagne ba day xar alquran jooju la yàlla suñu borom doon wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñàqtooy xépp di daw ci ki nga xamante ni bi mooy soxnaam naan zammilu nii zammilu nii bu borom bi naan ko yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila yaa fa anzir alquran jooju borom bi subhanahu wa taala ba mu koy wàccee ci yonente bi naan ko iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insana min alaq ñun ñëpp borom bi subhanahu wa taala wàcceen ñu alquran diñ ci nettal ay xissa naan ñu nahnu naxussu alayka ahsana alqasasi bima awqaynaa ilayka hada alquran borom bi subhanahu wa taala waxaat ci alquran ni alif lam mim zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin borom bi subhanahu wa taala kéemtaan jëpp mu jël ko dëxañ ko ci biir alquran nee na wa nunazzilu min alqur'ani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin inna haadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir alqur'an jooju buñ gisee koo xamante ne bi da ngay génn ci média yi di ko saboote dafa jot ñun ñi nga xamante ne mi ñooy waa ahlul qur'an ñu jug wax ak yow ak foo ti jégaloo bu doon 40 000 jéggalu sax du tax ñu génn li nga xamante ne bii moo nekk suñ xole ndax alquran jooju moo ñu def tey ñu am ay daara alquran jooju si lañ ñu tàggat yóbbu ñu sa daara ñu dem jàngi alquran jooju alquran jooju boo génnee àdduna moom lañ lay jàngal alquran jooju képp ku bëgg a kaamil da ngay woo sëriñ daara mu ñëw wàccee la kaamil alquran jooju képp koo xamante ne da ngaa bëgg sa doom di nga xool ab imam mu ñëw tuddal la ko alquran jooju képp koo xamante ne bii da bëgg ku la miraasal ci alquran ngay ñëw yàlla suñ borom lépp dëxañ na ko ci alquran alquran nee na maa farat naa fil kitaab min shay kon mbokk yi alquran jooju duñ nangu kenn koo xamante ni bi yaa ngi ci réew mi ngay dal ci kawam dalal ci ku la neex dalal ci borom tur bu la neex mais alquran jii ñun pare nañ pour képp koo xamante ni wax nga ci virgule wala virgule zéro sax ñu jug pour tontu la ci alquran jooju noonu di noonu nag ci laay bàyyee oustaz mu leeralal leen nit kooku lam doon wax ci alquran naan suñ borom sax ñun sax bëgguñoo jaar ci kàddu naan yàlla suñ borom am na ci alquran loo xamante ni bi ay léeb la lam ko tudde nag ci ay léeb ñun xam nañ ko mooy histoire yàlla di nettali mu bëgg a wax ne amul woon te lépp lu am la yàlla mi ko doon nettali ki nga xamante bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ne ko alif lam ra tilka ayatul kitabul mubin inna anzalnahu quranan عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوكينا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين tabaraka allazi bi yadihi l mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir même ba ci kattanu borom bi subhanahu wa taala sax nan lay yore nguuram ci alquran la ko def qul illahumma malika al mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir loolu ci alquran la nekk nekku ci benn téere fii amul ku fi yàlla tudd ci alquran nga am valeur ñi yàlla tudd ci alquran ñoo am valeur sahaaba yi yàlla tudd ci alquran ak yonent yàlla tudd ci ñoo am valeur keneen ku fi taxaw di bàkku nag te yàlla tudd la ci alquran baye boo nga dem xoole feneen fuñ la tudd baye boo nga dem xoole keneen koy ñaawal si noonu nag laay jaare jox kàddu oustaz mu leeralal leen valeur u alquran ak tontu waa jooju nga xamante ni moo jug pour saboter alquran te mënu ci dara aoudu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wasalatu wasalaamu commencé kàddu gi rek di tuubal suñu borom subhanahu wa taala di wax ne suñu borom laa tuaxidna bima faala wa minna ñoo ngi jéggalu suñ borom subhaanahu wa taala di wax astaghfirullah alazima bi qudrati astaghfirullah alazima bi azamati ni ñuy jéggoolo yàlla ni nag nu ko raw la ñuy sàkkoo ci Ahmad Cissé ndax maa ngi dégg ñaan ko cheikh Ahmad Cissé kooku matul ab cheikh matul oustaz matul sëriñ kooku du dara maanaam ñoo ngi sàkku ci moom di ko wax ni ni ñuy tuubalee yàlla ñun nu ko raw moom na dem tuubalee noonu suñu borom subhaanahu wa ndax kàddu yam wax rëy na te it kaddu yam wax dara amu ci te alquraanu karim ñëw na wedd na kàddu yam wax Ahmad Cissé nee na alquraanul karim am na ci loo xamee ni yàlla da ko wax noonu rek pour di lépp suñ borom amul temps boo xamee ni da koy yàq pour rek di lépp suñ borom subhaanahu wa moo nii histoire yi nga xamee ni maa ngi leen koy nettalil nekkul histoire yu ñu fent waaye histoire yu am la ما كان حديثا يفترى walakin tasdiqa alladi bayna yadayh yàlla nee na maanaam loolu histoire yooyu ma leen nettali ngeen koy dégg nekkul ay ay ay waxtaan ñuy sos de nekkul ay mbir yoo xam ne damay jekk-jekk di wax ni rek déedéet ay mbir la yoo xam ne dëgg la ju bàyyi ko sa borom subhaanahu wa taala ñu ni ko waa suñu borom histoire yi ñuy nettali lan mooy jubluwaay bi mu ni laqad kaana fi ay ibra li ulil albaab maanaam histoire yi nga xam ne moom laa leen nettalil damoo ko def mu nekk ab mbir moo xam ne day xalab pour képp koo xamee ne am nga xel mën cee jàngee mën cee jëlee mën cee jariñoo waaye du lu may wax noonu rek suñu borom moo waxaat muy nahnu naqussu alayka ahsana al qasas ñun man yàlla maa leen di nettalil ay histoire yu neex yoo xamee ni histoire gënu koo dëggu histoire gënu koo rafet histoire gënu koo jag histoire gënu koo tegu ci yoon kon saa borom subhaanahu wa taala moo waxaat ci alquran mu ni tanzilu min hakimin hamid waaye yàlla moo wax mu ni laa yatihi l baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi yàlla nee na alquranu karim amul mënoo cee génne loo xamee ni nen la mënoo cee génne loo xamee ni caaxaan la mënoo cee génne loo xamee ni amul alquran lu ci yàlla wax lu am la Ahmad Cissé demal nga tuubi delluwaat ci suñu borom subhaanahu wa taala te xam ni boo ko deful ëllëg yawmal qiyaama wala fii ci àdduna wala sa bàmmeel nar ngaa sonn suñu borom nee na wa bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazal alquraanu karim ci dëgg lañ ko wàccee ci dëgg lañ ko joxee rasulullahi waaye ci dëgg la ko rasulullahi jottalee kon alquran ca amul caaxaan innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hasl alquran du ay caaxaan alquran du waxi neen alquran du nit di fowee alquran du loo xamante nit ki da ci utee bës Ahmed Cissé boo utee boo bëggee bës demal wutee ko faneen boo bëggee ab wàccuwaay uti ji ko faneen boo bëggee nit ñi faala ak di la déglu uti ji ko faneen waaye boo laalee alquran di nga xam ni laal nga xol yi laal nga julit ñi laal nga foo wóote laal liñ naan laal nga laalaake nag tey nag moom laal nga laalaake alquranu karim jii nga xamee ni teg nga ci lu amul di tuumal suñu borom subhanahu wa taala di waxal yàlla loo xamee ni amul te suñu borom nee na bàkkaar yi bokk na bi ci gën a rëy mooy wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun ngeen i wax ci yàlla loo xamee ni xamoo leen ci dara amoo leen ci xam-xam wala ngeen xam ko di dof doflu loolu bàkkaar yi gën a rëy ci la bokk Ahmed Cissé la nga def rëy na delloo ci suñu borom subhanahu wa taala nga tuub te xam ni alquranu karim lépp lu ci yàlla wax dëgg la lépp lu ci yàlla wàcce dëgg la histoire bu ci ñëw dëgg la suñu borom subhanahu wa taala ñu mel ni Ahmad Cissé yàlla wax na seen mbir bu yàgg suñu borom nee na inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha fa amma alladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladina kafaru fa yaquluna madha arada allahu bi hadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa maa yudillu bihi illa ñoom Ahmad Cissé yàlla nee na man rusuma di jël exemple si yoo yàlla nee na man rusuma lépp sax ba ci di lépp ci ab yoo yàlla nee na man rusuma wax ci lu gën a ndaw yoo sax mën naa cee wax waaye nag su ma joxee exemple léeg-léeg ñi nga xamee ni gëm nañ yàlla dañ naan a ah, lii kat dëgg la ndax yàllaa ko wax comme ci yàlla lu jóge dëgg la waaye ñi nga xam ne ay kàccoor lañ mel ni Ahmad Cissé moomu dañ naan a ah, lii daal du dëgg maanaam lii daal xamuñ ko lii daal ay caaxaan kese kon yàlla wax nañ ko bu baax a baax suñu bam ne ne wamaa yudillu bihi illa al faasiqin ñi nga xamee ni ñooy sànku ci xeetu histoire yooyu mooy kàccoor yi mel ni Ahmad Cissé Ahmad Cissé demal nga tuub nga delluwaat suñu borom subhanahu taala te xam ni alquran weddi na la avant ñu lay weddi li ngay wax ñu bëri xam nañ du dëgg julit ñëpp xam nañ li nga wax dëgg te wallahi lii nag maanaam nekkul lu ñuy wax nii ci presse bi rek bàyyi noonu waaye des na ko sax topp ci yoon jàppal ni ñun lu ñu man ci yoon dañ ko def bañ teg la daan bu ñu la tegul daan tam ñun la ñu war nañ ko def ñun waa ahlul quran waa ahlul quran dinañ jug ak képp koo xam ne bëgg na alquran sopp na alquran taxaw ci lii ñoo ngi ñaan képp koo xamee nag am na kàddu ci réew mi na wax ci lii ba kii delluwaat ginnaaw ci waxi caaxaanam yi comme buñ laaloon kenn ni ñëpp du jugee tey laal nañ ki nga xamee ne kenn la moo gën a màgg ñëpp te kenn du ko caaxaane mooy suñu borom subhanahu wa taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu tab tab seen